asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 28 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëye yëglekaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci xëtam wu njëkk maanaam daal li mu xëyee tey daa mel nu mel ni ki mbirum évaluation wala boog koy inventaire lamb ji wala saison bi nga xam ne moo jeex ñëw na ci promoteur yi waaye la mu gën a fësal nag mooy jàppal G7 daal la ko tuddee maanaam juróom-ñaari mbir yoo xam ne day ren marqué na sa saison bi bu baax a baax a baax ci làmb lam ca njëkkee nag jàppal ci meilleur combat yi kawo yi espoir yi ak li nga xam ne nii ñoom ñooy révélation yi bu dee li site bi nga xam ne nag moo dàq wala combat bi nga xam ne bëri ba neex na lool ba pare jël li bëri mooy diggante Modou Lo ak kii nga xam ne moo di Balla Gaye yëglikaay bi ñëw na wan ñu ko nee na boobu day vraiment boo ko xoolee daal dëgg dëgg dëgg danga fay gis bëri bu wóore wóore wóor bëri bu neex a neex a neex te tamit jàpp na ne ñoom ñaari mbër yooyu la tax seen combat neex kera dañoo bokk ci mbër yi nga xam ne wala ñooy ñaari mbër yi nga xam ne ñoo gën a populaire ñoo ëpp mbooloo ci làmb ji na ñu def kay Léopold Senghor ci mbooloo ëpp na yemuñu ca ñu xeex bu xeex bu metti bëre bëre bu rëy waaye jël ba tamit rëy lool balla am ko ci kaw kii nga xam ne moo di moodu waaye yëglikaay bi indiwaat na beneen muy ñaari mbir ma nga xam ne tamit saison bi dootuñ ko ci fàtte bu baax a baax muy kaw boo xam ne day kii di Modou Lo def na ko Eumeu Sène muy ko gaaw a fàtte moo xam moo doy waar moo tax nag ñu nga xam ne moo di Eumeu Sène ba ko Modou Lo dóoree na Modou tale la ay loxoom di wane ne moom am na ndam muy kaw boo xam ne day waa làmb tamit dootuñ ko fàtte waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy supporteru Modou Lo yi leneen loo xam ne tamit yëglikaay bu ñëw na ci muy ñetteel boo xam ne nii tànn na ko ci ci juróom-ñaar yooyu benn ka nga xam ne nii ab espoir la di duubul mateur nekk ca rëbës yëglikaay bi na day moom puissance daal am na ko bu baax a baax ñëw na ren wone boppam daal di wane ne day moom ëllëg nar naa bokk ci ñi nga xam ne dañuy téye làmb ji ndax ñaari combat yi mu am yépp moom double moteur da koo gañee moo tax yëglikaay bi ne day ginnaaw naaru soogaas kii di fëgg la la teg moo tax nag yëglikaay bi jàpp na ne day moom xale boo xam ne moom tamit fi mu teg baax na keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom ba tey ci lim boobu muy ñeenteeli place ba muy kii nga xam ne nii moo di Reug Reug mi nga xam ne lambi lambi simple ji moo ci man te lambi dóor ji tamit mbër daanagu ko ci moo tax yëglikaay bi jàpp ne moom day ay tànkam fi mu nekk nii da koo teg ci kaw làmb ji ndax nag la nga xam ne nii de moom lay wane boobu ba tey nit ñi moom xaw na leen jaaxal rawatina waa làmb bi ci gën a yéeme nag mooy digganteem ak Gris na mu ko daane yëkkati ko ba ca kaw teg ko ci suuf wane moom day fi mu nekk nii fa mu jëm ñeme na ko yëglikaay bi nag ne li ko ku gën a may daal bokk na ci sérieux ak bëgg lool li muy def moom rëg-rëg keneen koo xam ne tamit révélation la ko yëglikaay bi tudde mooy xale boo xam ne day écurie Fass la nekk ñu koy wax caatu montagne mu mel ni ki nag yëglikaay bi ne day ah segg ngi nii koo xam ne ni day buñ ko too ëllëg mën naa nekk segg gu mag a mag a mag ci làmb ji ndax xale ba day combat mu defu ren yëpp tollu ci ñett yëpp ay ndam la ci am yëglikaay bi moo tax mu jàpp ne day xale la boo xam ne am noo fit mën naa bëre tey itam day la muy def xam na ko lool moom caatum montagne yëglikaay bi ñëw na wan ñu ko waaye tamit fecc bi nga xam ne moo dàq ci saison bi yëglikaay bi dacaa ñëw ka ko def nag du kenn ki nga xam ne moo nekkoon roi des arènes muy kii nga xam ne moo di Eumeu Sène mu mel ni ki nag moom daal njuukam moomu day ren bu ñuy tànn lu dàq ci wàllum fecc ci làmb moom la yëglikaay bi tànn wan ñu ko moom Eumeu seen mu nga waaj toog ca li nga xam ne moo di ay kiwisam tàllal ay loxoom di njuuk njuuk mu sax a sax a sax waaye keneen koo xam ne nii dey moom bawal la bokk ca écrit bawal muy wulli numéro 2 wulli nag moom technique ba nga xam ne ni moom la daane ambulance bu Thiès yëglikaay bi ñëw na mooy juróom-ñaareel ba muy jël boo xam ne day deetee su ko mas a fàtte ndax nag wàcc ba mu wàcc def benn demi flexion xar ko jël ko daan ko jël bu rëy rëy yëglikaay bi ñëw na ci muy loo xam ne tamit lu marqué saison bii ñu génne moom la waaye promoteur yi tamit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom de évaluer leen mu mel ni ki nag ñu ngay dox ndànk-ndànk kone di gën a wane sa bopp loo ci mën a dégg daal ñoom promoteur yi ñëw nañu ren wane seen bopp bu baax a baax a baax yëglikaay bi nee na jàppal bu dee sëñ Modou Niang la moom égal à lui-même maanaam moom daal la mu nekkoon ba tey daal mu nga ca rek chaque année mu wane boppam fexe ba jiitu ci wàllum tëggum làmba ji Assane moom la nga xam ne nii moo ko rëccoon da bu baax a baax a baax a baax a baax amaat na daal ay combat yoo xam ne yu baax a baax la yu mu tegaat loxoom la mu nekkoon kon moom delsi na ca bu baax a baax na ko waa làmb xamee woon lig ni ko laay moom yëglikaay bi na moom loo ci mën a dégg moom ci ñaari journée daal boo xoolee ci la yem moom ko Nicolas bu Mbour Fallou njaay nag moom nee ay galom moom da koo yokk ren moom daa yokk bu baax a baax ba moom Fallou Ndiaye ma jiite Ndiaye production Pape Abdou Fall ak Gaston moom ah daa mel ni ñoom itam daal loo ci mën a dégg moom seen a dox ndamit demeetul noona wala boog ku ci mën a lu ci mën a xaw daal ku ci ne bi ci benn combat ca nga yem parce que loolu la ñu yëglikaay bi xëy xamal Sidi Jaxate moom jàppal li leer ba leer day bu dee buur am na ci tëggum làmb ci li nga xam ne moo gën région de Dakar moom mooy roi ba yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey ñëw wax ñu ko mu mel ni ki nag Sidi daal lamb ji ci biti moom moo ci buur rawatina nag fa nga xam ne moo di Thiès di ëpp dëkkam waaye keneen koo xam ne nii moom ginnaaw ba nga xamee ni génnoon na fan yee di da wala muy bañ a ànd ànd ci li nga xam ne moom lañ rëg-rëg a man ci làmb ji la rawatina làmb simple ji booy fay bañoon na loolu leneen loo xam ne tamit booy fay ñëw na tey di ko ñaxtu wala mu koy wax mu metti ko lool mooy ñi nga xam ne moo di arbitre yi la jàpp ne day il ñu xoolaat bu baax a li ñuy def te tamit jéem a gën a maîtriser li nga xam ne moo di règlement bi booy fay xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu waaye jàppal yëglikaay bi fi mu xëy ñëw tey lu jara waxaat la lu jara bàyyi xel la ndax nag diggante kii nga xam ne moo di Modou ak Balla combat ja neexoon na loo ca mën a dégg waaj wa neexoon na waaye ñu bëri tamit bëri bëri na jël bëri diggante Modou ak Eumeu tamit enjeu bëri woon na lool lool lool ku ci nekk nekkoon ci lu wóor bu dee Modou mu ñàkkoon combat bëgg a jógaat Eumeu seen yoroon roi bëgg caa toog waaye Modou ñëw daan jël boo xam ne nii day kaw boo xam ne metti na lool te itam bet ñu baree baree bare bari waaye espoir boo xam tamit mu ngay wane boppam double moteur yëglikaay bi tamit loola mu tànn itam yaakaar naa it xel xaw na ko war a nangu ndax nag ñaari combat la def ñaari ndam te ñu ko jiite ci làmb la na tànkam ci làmb ji day ah mu ngi wane boppam révélation bi caatu montagne waaw moom it di xale nekk écurie Fass waaye chorégraphie ëma scène bi itam doy na waar waaye wulite itam na mu daane nga xam ne nii moom moo di ambulance bu Cees it lu jara wax la waaye man njugu ëma seen ba laay laaj ndax taale njaay yàgg yàgg mar ñaari njool xéewal yi est ce que mën ngeen a njuug wàcc seeni tànk ba ci seeni kiwis dox dem ku leen def la woon loolu xalaat naa taal boo demee tey li dina la dàmp yàgg yow moom xawma ku lay dàmp ndax célibataire nga mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ah Ndeye Coumba Fall maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la wax ne namoon nañ la di nuyu di nuyu sa bébé Mohamed di ko ñaanal yàlla yaram mi yàlla na ko yàlla wéral barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di nuyu internet di suivre Leewtoo TV a nekk si àddina bi ñu ngi leen euh, si si ñaan yooyu nga ñaanal sam doon ba di Mohamed Babacar xam nga la mooy G7 G7 G de moom maanaam chiffre la ci tubaab 7 tamit chiffre la mais 7 moom juróom-ñaar lay signifier waaw kon dafa mel ni kon juróom-ñaari grand combat yi wala juróom-ñaari nu nan lañ ko mën a. soo déggee G7 xam nga instant bii nii G7 mi ngi am fee si Biarritz mooy sommet des sept grands. wax nga dëgg ca Biarritz. ñi gën a am doole. ñi gën a am doole kon loolu journal bi reprendre tey. voilà su la reprendre ne tuddee nag yu gën a affaire yi fee yu marquant yu gën a mag si si si saison bi mu tuddee ko nag G7 làmb ji G7 pays développé yi dafa am léegi nag ñoom def nag G7. fait marquant yi gën a am si si làmb ji loolu mooy G7 euh, suñu làmb na dafa ñëw na tey na si G7 làmb ji bi mu njëkk ñëw mooy meilleur combat mi ngi ko tuddee Modou Lo Balla Gaye waaw loolu xel war na koo mën a nangu parce que bu ñu ne meilleur combat Modou Lo Balla Gaye ñu tànn ko ci G7 boobu boole ko ci yaakaar naa combat boobu bi muy waaj taxaw ak bi mu taxawee ba niñ ko bëri lépp coow la defe naa yaa ngi fàttaliku place du souvenir seen premier daje defe naa kera guddi googu joxoon na trop yaakaaroon nañ sax est ko que guddi dina jeex li ko waraloon mooy enjeu combat ak ñoom ñaar seen rivalité ci làmb ñu ne déet nañ fi Paris jàkkaarloo fi ñu enregistré leen ci ay vidéo fu ci nekk daal foo ci fuñ ci jaar ñoom ñaar day def trace yaa ngi dégg ba niñ mujj a def dîner de gala ba nañ mujj a demee fa nga xam ne mooy ca stade ba ak seeni open press ak yooyu ba ñëwee kera tamit Léopold Senghor gis nga Léopold Senghor nañ ko def pour football def ko doon sax day jafe ci mbooloo yaa ngi dégg ñu wane fa lu nga xam ne nii ci wàllum tamit tous chorégraphie ak def lay nu mu la mbër war a def mystique ak lépp entraîné ba taxaw ku ci ne bala nag INSEP su jaar fa def liggéeyam moo du dem Barcelone def liggéeyam ñu daje Léopold Senghor yaakaar naa ba ñu summee ko bëri itam kenn merewu leen donte xëy na ku sa mbër ñàkkit am nga loolu naqari mais doone sama mbër mi dafa wane ñàkk jom bañ daan ko ñoom ñaan yépp ku ne arbitre daa soufflé nekkuñu fa di liib liibi naan ñu dem gauche droite arbitre daa soufflé Balla ak Modou nekkal ko ci xeex xeex bu tar jàppante bëree bëree bu rëy rëy rëy rëy dégg ba yàlla def ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye de yàlla mayaat ko ndam ci kaw Modou kon defe naa man d'accord naa ci ñu ne combat boobu mooy meilleur combat ren. ok beneen fait marquant bi tamit mooy euh, combat combat royal bi amoon le 28 juillet diggante Eumeu Sène ak Modou Lo nee na kaw daal dañ koy a gis ci làmb ji moom la kaw impitoyable. waaw lu ñu yéex a teg si làmb kaw boobu itam jar na bàyyi xel ndax kaw boobu li tax mu doy waar mooy euh, combat boobu tamit dafa amoon enjeu parce que Modou dafa jógeen ci défaite ma nekk yore couronne roi di wutoon revanche ci Modou Lo yaa ngi dégg ñu doon wax lu ne ci combat bi yàlla def bi ñëwee Modou indi leneen loo xam ne nit ñi xalaatoon nañ xeex mën na ci am mais nag comme dóor mu daanu boobu façon bi mu amee. benn action dóor mu daanu combat ba jeex pour surtout Eumeu Sène nit ñi xaaruñu woon loolu mais nag làmb comme li olof yi wax rek du biir dee xëy wasin quoi moo tax bi loolu amee nag benn daje lañ daje Modou am ci benn dóor yàlla may ko ci ndam moo tax kaw ba ak façon ba mu amee ak na Eumeu daanoo moo tax itam pour ñu fàtteeti ko dina jafe te itam nag ah nekk na loo xam ne nii moom lu marqué sénégalais yi la kon bu ñuy tànn kaw yi nga xam ne moo gën a doy waar ren ci saison bi defe naa boobu bu ñu ko defee numéro 1 itam waaw lu daa lu lu jaadu la daal ba beneen bu ñuy dem mooy troisième point fait marquant bi muy double moteur nee ñu daal moom mooy meilleur espoir parce que mi ngi yéeg en puissance. waaw loolu tamit xel mën na ko nangu parce que double moteur xale la bi nga xam ne écurie bi mu nekk taxu ko nekk écurie bu mag rëbës waaye nag ñu ngi former ay champion moom nag mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës euh, boo xoolee ren. Euh, sorti yi mu def vraiment sorti yëpp yàlla da ko cee may ndam mu bëri ko arène nationale muy ki ci jëkk mooy digganteem ak naaru sogas te ku ne xam ne ñooñu ñoo ko jiiti ci làmb yaa dégg ëpp ëpp ko expérience su làmb mais ak ñi muy àndal donte xale la bu ñëwee dina leen gérer ba daan leen bi ci mujj mooy digganteem ak fëgala fëgala itam yaakaar naa du ñeexum ñebbe te ay mbëri rek la fi daan yaakaar naa bi muy mujj bëree jokkeel bu Fatick la daan kon tey bu ko Double Moteur jëlee ñu bëri xalaatoon nañ ne sax Double Moteur est-ce que li mu jël wóor na mais ba mu ñëwee tamit donte combat woon na ndax fëgala mayu ko jàmm bëri nañ xeex xeex bu tar yàlla def double moteur géré fëgg la ba daan ko kon tamit buñ ne mooy meilleur espoir bi tamit yaakaar naa ne day ah euh, dina ci bokk ci meilleur espoir yi de parce que tamit mu ngi wane boppam moom double moteur di xale boo xam ne daal yaakaar naa ne fi mu nekk nii quartier di Rebeuss fexe na ba mu bokk si làmb tey actuellement quatrième point bu bu bu gën a marqué si arène bi saison bi ni génni mi ngi rëg-rëg ne ñu rëg-rëg daal il a mis l'arène en dafa ub làmb ji Babacar loolu nag mag ñoom na xaw na si d'accord ak waasul làmb parce que peut-être xëy na mën nga lim ku si mel ni comme général Malika ndax mi ngi mi ngi wane bu baax boppam si bëre simple bi mi ngi wane bu baax boppam si bëre dóor bi te aussi moo nekk révélation bi nga xam ne mooy drapeau chef d'état Babacar waaw général Malika mooy révélation de la résultat mais bu ñu ne Reug Reug euh, dafa teg tànk ci làmb ji yu mel noonu xëy na Reug Reug ndey kumba boo calculer saison yii ñett saison ba ci bii jeex nii boo ko calculer Reug Reug li nga xam ne nii mu ngi koy def bu dee li bi daf ci participer lu toll ci 100 tournois jàppal ne 98 pour cent yëpp da koo gagné. yaa ngi dégg kon loolu boo ko ci nattee ci lit simple bi nga ñëw ci lit avec frappe bi combat bu ñu indi yaakaar ne kooku da koy daan bu ñëwee mu daan ko moom na mu ko bëggee daane ci lu ko neex ça veut dire que kon suñ nee tamit ah teg na tànk dana naqaree dindi donte ñu nga wax ñu ngi progressé ñoom général Malick ñoom booy fay ñoom Grand Mbagnick ñoom ñëpp ñu ngi progressé di wane seen bopp ay ñoom Doudou Sané ku nekk yaa ngi wane sa bopp ay ah, xale bi bébé Diène mu ngi percé moom tamit yaa ngi dégg ak xale bi sant fay kii tur ba xaw na ma réer tuuti ñoom ñëpp daal mburu simple yi ñu ngi jéem di percer mais nag à chaque instant dañu gis ne bu participer moom at boobu ñu ko évaluer moo leen dëpp lu mu gagné loolu xëy nag boo ko tegee teg li muy def ci lutte avec frappe bi wax dëgg yàlla am na ci seen kaw avance bu baax a baax a baax mais nag euh, comme olof yi li muy wax rek nañu gën a liggéey mais Reug Reug moom man d'accord naa ci loolu journal bi wax man cinquième point bi nag mooy caatu montagne nee nañu moom mooy révélation euh, euh, arène bi nu saison bi nu génn Babacar. waaw révélation tamit parce que xale bi nga xam ne écurie Fass la ne te mu ngi dox lentement di wane boppam yaakaar naa ren bëri na ñetti combat te yëpp da ci génn ak façon bëri am na ci combat boo xam ne keroog Ibamar dama ne woon jeex na parce que fañ ko yegg gaaw. mais fexe na ba sotti waa ji ba dellusi ko fi mu ko bëgg a dellusi daan ko jël li bu rëy kon yaakaar naa ne tamit moom noonu ko journal bi waxee moom caatu montagne boobu nekk écrit face yaakaar naa révélation la te man tamit loolu fa tey d'accord naa ci ndax nag sorti yooyu ko ko def am ci ay ndam yaakaar naa jar nga bàyyi xel kon day euh, écrit bi di face xalaat naa bu ñu ko sàmmee jàppale ko ëllëg mën naa bokk tamit ci ñi nga xam ne war nañu mën a bokk ci ñi tee làmb sixième point bi nag mooy meilleure chorégraphie meilleure chorégraphie Eumeu Sène lañ ko jox nee nañu ak njug bi mu def si si combat yi mu mujjee def Babacar. waaw njug Eumeu Sène boobu moom man d'accord naa ci tey ku ma faal njug Eumeu Sène ba neex na laa ilaha illallah Mor bu ko tëggalee ama wàcc jàkkaarloog moom non Eumeu gisoo li mu fecc kere Léopold Senghor am na benn moment bu mu fecc ba tourné jàkkaarloo ak ndënd yi maalo bu Pikine dox dajeeg moom. non loolu c'est autre chose kon Eumeu Sène yaakaar naa euh, tey chorégraphie bu ñu ko waxee wala fecc bi dàq ren ci saison bi suñ ko ko joxee man Babacar ànd naa ci de parce que nag lañ koy tëggal saa ñu ko ko tëggalee yow bu dee nitu làmb nga di nga am loo yëg ak na mu koy feccee waaw wàcc ndànk moom laay waxtaal ak yàgg léegi ndax mën nañu loolu ndax loolu xam naa ma leen ci gën a jekk ndax man ndaama laa waaw dafa gàtt waaw looloo tax ma man ko xam nga njool mënut lool parce que laay tax man ndaama laa septième euh, point bi mi nga xam ne mooy upp euh, G7 bi mooy meilleure chute meilleure chute nag ni nga ko jagleel wuli de boobu tamit maag sama mbokk waa sunu lamb bi d'accord monsieur man tey ji su jox tey meilleure chute xëy na combat Ama Sène euh, Modou ak Balla ñoom laa koy jox meilleure chute boobu noonu mais comme ni ñuy waxee rek ki choisit élimine Babacar. non kii waaw boo saa boo tànnee am ñoo bàyyi de waaw loolu de am na waaye ñoom tamit loolu itam ba tey mënees na ko nangu de parce que wuli de ni mu daanee ambulance c'est lu doy waar de. de jilli bu rëy rëy la ko daan parce que nag la mu def ñu bari xaaruñu woon kere mu def loolu ndax bi ñu sumee ko ñëpp dañoo yaakaar ne ambulance mi moo am avance kawul de ci côté doole kon suñu bëree bëree bu mel noonu mu def demi flexion boobu xar ko géppeen yaa ngi dégg aj ko bi tërñi ko daan ko jël boobu ah ndey Kumba Faal jël boobu itam jar na bàyyi xel de suñu làmb daal daa ni seen tànn bii buñ ci juumee itam bëriwul de waaw man daal loolu laa gis man Babacar néew ma nag juumuñu ndax kenn man ma tëlle waaye daal tànn nañu waaw tànn nañu daal kon boog baax na Babacar suñ jógee nag si fermbaaka yi ñu dem nag si promoteurs yi def nañ tamit bilan promoteurs yi nee ñu daal comme moo ku nekk révélation boog wala boog ñoom boog su lu ñu yaakaar muy Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye dafa yëg en puissance Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye yëg nañu en puissance Luc Nicolas moom dafa ralenti Gaston Meng ak euh, Luc Nicolas ak Pape de Fall aussi dañoo ralenti ki nga xam ne nag mooy jël ndaare nag si si promoteurs yi mooy suñu patron Pape Thialis Faye moom daaw ñëwoon ak 7 journée ren mi ngi ñëw ak zéro affiche Babacar lu doy waar waaw doy na waar mais comme ñun ñu wax tamit muy Fallou ak Assane yéeg en puissance bi ñu def wala ñu ay révélation parce que loolu tamit c'est normal parce que li tax mooy ñoom hmm, xam nga promoteurs yi euh, damay wax ne que rek ñoom ñooy béyaru làmb ji dañuy jaar di ñaanal yàlla ndax li ñuy def man di am réussite ndax bu ñu amul xaalis mbir yi du ñu bëri mais nag Fallou ak Assane dañu ràmpe ci làmb xam nga làmb boo tëggee mbapat yaa ngi dégg ci ay koñ dund làmb pour nga tëgg làmb muy neex dana yomb. yaa ngi dégg xëy na ñoom loolu tamit boog na ci lu leen gën a dimbali kasaalik ñeneen ñi ñeneen ñi noonu yaa ngi dégg muy ki nga xam ne nii mooy ni ko lay yaakaar naa moom itam affiche moom mënut amatul lu mu ciy ndax affiche bu ne tëgg na ko Sénégal kon xanaa kay léegi day ñëw rek di gunge waaw deux journées yooyu mu tëgg moom tamit keroog bañ demee Mbour yaakaar naa lamb ju neex la fa tëggoon ci diggante Sélémel ak bébé Saloum numéro 2 waaye tamit ren defe naa ne lamb ji mu tëgg bokk na ci lam yëpp coow ci làmb ji muy diggante Gris 2 ak Reug Reug kon léegi itam marqué na boppam marqué na am ren saison bi sëñ Modou Niang moom égal à lui-même maanaam moom toujours toujours moo nga ca na mu nekkoon moom moom moom day tëgg rek moom espoir yi moom da leen di wane bu baax a baax a baax Sidi Diakhaté nga dem ci biti foofa moo fay buur effectivement daxaar naa Thiès la mu fa ci journée bëri na te xale yi nekk ci côté boobu yëpp da di bëreloo moom tamit vraiment ñu ngi koy wax mention spéciale. ñu félicité aussi ñoom Baye Ndiaye ñi xam ne ngi soog ñëw ñoom IA comme ñoom ñoom ñoom aussi ñoom ñëpp. na leen di encouragé itam ñëw na tëgg na combat boo xam ne nii ren euh, grand combat ba nekkoon laay Pythagore ak ki nga xam ne nii mooy ñaqa jariñ ak ba wala brise de mer mais euh, suñu waay ñu koy nuyu di ko siyaar moom tamit na mais defe na defe naa bi mu ñëw itam wane na boppam ndax na mu def ren arène nationale promoteur defagu ko ko ci diggante Lac ak indi combat bi ëppoon coow ren muy Modou ak Balla kon defe naa ñoom ñëpp daal daal ku ci ne am nga mérite parce que dama naan rek ku ci ne def nga la nga xam ne ni moom nga yaakaar ne moom nga waroon def ci saison bi mu jig def nga ko muy ñoom jéey seen itam wane na boppam bu baax a baax tëj saison bi moom fecc loo reporter yépp jéey Pape Abdou Fall tam waaw Thiat Seck bu indil ñu Moussa Ndoye garga combat cosaan boobu laa tudd ren combat cosaan muy combat bu neexoon kon ku ci ne daal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 toog daa ba fekkee sa njëriñ njaboot yëpp dundal euh, yow mi DG Braman Babacar. di la nuyuwaat di la ziaraat di nuyuwaat ki ku ñu suivre waaye nag di nuyu sama benn rakk bi nga xam ne Ibrahima Diouf lañ koy wax ma moom ñu dëkk ci ak yaay fan yële paas mu doon takk soxna fële ca Réfane moo koy nuyu di ko ñaanal sëy boobu yàlla na ko ci yàlla defal barke mu ngi fële ci ri rafinel di commerçant mu koy nuyu bu baax a baax di nuyu xale yi dëkk ak yaay yëpp yaay du leen fàtte ku ci nekk rek maa ngi lay nuyu di la parce que nit ku ne am loolu gën a fort fa nga dëkk te Babacar ak yaay la dëkk encore une fois di ko sago muy sama village natal muy nuyu ña yeewoo ñëpp ak doomu ak yaay fu ñu mën a ne mais lépp di barangom ak ko xam ci Pape Mbomboy nekk mécanicien moom tamit fii ci RTS di leen nuyu bu baax a baax di wax bala moom da doon ngénte ñaareelam samedi passé ma demoon jaamu ji may nañ ma xaas su bëri yaa ngi dégg foofu ca reefan soo paree sedd na voilà <laughs> ma koy nuyu bu baax a baax di wax liir bi yàlla na gudd fan di nuyu ka nga xam tamit mooy doomu baayam di rakkam di mbay géey xam nga ñu tudde ko sama nijaay Ndiame ma koy nuyu bu baax a baax keroog daal moom may nañ ñu xaas bëree bëree bëree bëri ah, doo nuyu Aïssa Faye gaa yaa ngi koy laaj Aïssa Faye non faw mu nuyu ko Aïssa du mën a ñàkk mu nuyu ko parce que Aïssa moom Siri Moussa Nia yaayi njaga Aïssa maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais Ndeye Coumba Fall internet yi tamit faw mu nuyu leen yaa ngi dégg ñoom Maam Modou Guèye ñoom Bensema Dem ñoom Njaga Ndiaye xam nga ñoom sëñ Baara Kanji ak Laay Laay Njaay ñoom ñëpp képp kuy commentaire vidéo yi maa ngi lay nuyu ñoom xadiro scott su jabong amu ci kenn koo xam ne ni daal fàtte fàtte naa la ñëpp daal nuyu naa leen nuyooy xol nuyooy nangam parce que li tax ma di leen nuyu mooy ñoom ñooy commentaire vidéo yi des fois nga juum ñu ne la jubantil li Babacar yokkal li wàññil li ndey ko ma defal li loolu ki la nan sangul sa taar la bëgg ma ki la ne tey euh, wax ji na jaar yoon na tegginu baat bi wàcce ko wala baat bi yokk ko wala wax ji na gën a leer kooku dalaa bëggal lu baax parce que nag ku la néewul ku la ne toogeel nii wala taxaweel nii kook bëgg na nga jagle. Talla Ndiaye loo koy si ñaareelam bi muy waay. Talla Ndiaye est-ce que dina takk ñaareel loolooy question bi est-ce que lébu <laughs> neex te wutul wujj de ndeysaan lébu mën na la muy def macha la yàlla na ko yàlla fal cat lébu maa ngi lay nuyu yaay xale yi. moo fi dàq ceebu jën te bu la joxaañ ba pare lay jox siri ak laax meew mi lay nelawal laa xam kenn du lebu